moom nag euh, amul lenn luñ cee àdd lu ni daal amul kenn ku ci am yi preuve ci liñ may jiñee ko tuumaal buñ ko amee nañ ko indi ba gaa yi tuddee ko kon monsieur preuve dinañ ñëw incha allah nee nag mësul wax ni dafay dëggal ni candidature président Macky Sall troisième mën na ko am loolu dinañ ñëw muy ay kàddu yu jàngat ITV démb dañoo coupé seen ab signal foofu la ca bi match bi daaw ndax ñoom bu ngeen seetloo xaw ma ñeenti weer wala ñetti weer ci ginnaaw defoon nañ ak conférence de di dëggal ni ñoom ñoo amee exclusif bi wala ba bokk nañ ci ñu ko amee waaye daal démb moom CNRA war na leen ni leen kaay leen ngeen toog te xaar mbay demal toog euh, gannaaw ba nag nee bu ñu ko defaatee nag dana gën a métti ci ñoom ñoom waa ITV euh, match Sénégal démb bi 2-0 bi ñu ko dóor dinañ ci ñëw ab jàngat bu ci am gannaaw ba ñu bëree bëri daal dinañ koy jiiñ ki nga xam ne mooy euh, coach bi euh, muy Aliou Cissé dinañ ci ñëw muy ab jàngat lan moo ci jàngatu Sénégal yi ak Sadio Mané démb absence am est-ce que feeñee ci kii bi dàllu Qatar danañ ci ñëw léegi muy ay vidéo foofu la ca Qatar incha allah ñu ànd ak yéen daal di koy eh, jàngat incha allahu rabbi eh, vidéo bu Sadio Mané démb ci jamono bi match ci ne am pression boobu ma nga ca néegam toog band ab tànkam di seetaan comme ñëpp Karamba maa ngi koy gis noonu sax dafa mel ni ñu ngi naan ma taal na téléphone am depuis démb ba léegi maa ngi koy essayé moom mi gën a ràññeeku ci réseaux sociaux yi ñuy wax ni eh, daal nee na woon nee nañ nañ koy bàyyi mu dem parce que nee na xam na lii indi coupe bi mën naa indi indi coupe bi kii war a indi coupe bi xam naa ne moom Karamba bu ci xajee dinañ ko jéem a jot waaye du ñu tee indi suñu jàngat ci nga xam ne mooy li xew ci réseaux sociaux yi Serigne si naan duñ dem fenn duñ ñu dóor ak ñett la ñuy dóor ak ñeent la ñuy dóor ak duñ génn nangam sàngam ak duñu am ay point <laughs> Assane ci eh, Karim a ba ma léegi mm, daa dem supporter d'accord loolu waa dinañ ci ñëw ay vidéo la gis nañ ko ci eh, ci biir Assane euh,